l'avenir ñu am mbégte dalal euh, ku ñuy duppee Babacar Niang amaana su ma nee baaba Niang ñu bari duñu ko xam waaye su ma nee matadoor xel yëpp dem ci rappeur bu réewu Sénégal bii nga xam ne mën nañu ko jàppee old ndax nag teel naa dugg ci lii di mouvement hip hop waaye nag ni mu xamee culture hip hop bu la neexee nga boole ko ci artistes yi nga xam ne dañoo jóge ci true school yooyee moom nag mu ngi bàyyeekoo ca Caaroy Caaroy nekk ci banlieue bu Ndakaaru moom nag kenn dootu ko présenté moom moo daal di taxawal groupe bu ñuy duppee BMG 44 ñu bokk mën-mën gëstu loolu rek bu ñu ko déggee mooy ñoo xam ne dañuy ànd di xalaat ngir mën a indi ay saafara ci jafe-jafe yi nga xam ne peut-être askanu Sénégal mu ngi koy dund. boobu boobule groupe nag ñu ngi ko taxawal ci atum 1992 li waral chiffre 44 bi dinañu ci dellu si ci biir waxtaan bi waaye lu ko jiitu rek ñu wax leen ne ki nga xamante ne moom mooy Matador réaliser woon na ci atum 98 ñaari album benn bi ak waa groupe am euh, BMG 44 di hardcore ci atum 1998 beneen bi 44 for life en 2004 loolee ca mars 2004 la woon ci noonee sax dal di remporté meilleur album hip hop bu Sénégal ak groupam dal di door ab tournée européenne ci diggante Belgique Allemagne France Pays-Bas ak Suisse bi mu ñëwaatee eh, ci dëkk bi nag ñaari at ginnaaw gi mu dal di door carrière solo doore ko nag ci wàllu sëlaam ak rap boo xam ne ñu ngi koy intitulé xippil xool maanaam xool gis loole sax na tax na ñu gën a xam ki nga xamante ne moom moo di euh, Matador euh, ci atub 2010 euh, jàpp 2011 ñu dal di koy tabb meilleur artiste hip hop ca festival hip hop awards mu nekkit meilleur artiste hip hop R&B live ca suñu music awards mu daal di nag ubbi expérience bu bees ak uh, waa suba di projet hip boo xam ne àndoon na ci ak waa live band dal di génnee ca France benn tournée bu uh, sénégalaise ci noonu mu dal di ñëw nag uh, tey moom Matador nekk na artist rapport boo xam ne dafa am ay casquette yu bari bokk na ci producteur de musique nekk na tamit président a ban afrique culture urbaine muy euh, euh, li nga xamante ne mooy culture urbaine yu njëkk fii ci euh, Sénégal nekkoon na tamit formateur ci ONG Plan International ci atum 2011 ñu dal di koy tabb ambassadeur de bonne volonté ci observatoire de migrations installé ca Bruxelles ca Belgique atum 2011 ba 2022 la fa dal di jóge Matador ñu am mbégte ji la dalal di la bàyyi nga nuyu askanu Sénégal. Oh, di nuyu ñi di seetaan émission bi yëpp euh, di nuyu sénégalais yi di nuyu tout le mouvement hip-hop et des cultures benn aussi voilà dañuy dal di rek ñëw ci suñu euh, première photo Matador euh, photo bi lan la lay inspiré. waaw photo bi waaw <laughs> waaye li may inspire mooy col bi nga nii nii je me rappelle bien. Euh, souvent bu ñu daan bu ma daan dem ci ay manifestations euh, par rapport ak ay affaires yu am ci Sénégal walla feneen euh, donc col bi dama koy faral di takk des fois aussi je mais mets même bu fekkee du Sénégal dafa am manifestation mais am leneen lu xew pour les Palestiniens pour seen cause la cause des Palestiniens moo tax souvent damay def takk col bu mel nii quoi et ça me renvoie aujourd'hui tey ci liy xew foofu noonu. vraiment on voit que euh, c'est un peu le nombre de morts situation bi nekk biir Palestine je pense que ni képp kuy nit nekk ci àdduna bi war nga taxaw tey naqaru ko pour que ñu trouver ay solution ak ay saafara parce que ay nit lañu comme ñun ay mbindeef lañu ñu war a dund ci ci ci ci jàmm vraiment li ñuy dund metti na trop et may ma leen di soutenir chaque fois su ma ko mënee à travers si euh, ay yëre yu may sol wala kol bu may koloo pour vraiment les soutenir et pour montrer que ni aussi ça nous concerne et ñu ngi koy mettilu aussi di ko naqarlu mhm. mm. euh, ñu gis ne Matador après nag dangaa taxawal euh, ab groupe duppee ko BMG 44 dal di ci def les voix du peuple tey lan moo tax déjà 44. waaye ouais, euh, groupe bi euh, euh, ko dañu xamante woon au collège déjà man la Babacar la Mokhtar ak Gaye donc ñu jël bi initial yooyu def ko muy BMG après waa BMG bi 44 bi comme caaro yi lañ dëkk mu am histoire bu am caaro yi avec le, le, les nga xam ne doon seulement que des sénégalais mais ñoo xam ni ay jàmbaar lañu yu dem xeex ak. xeexal français yi ba ñu jotaat seen indépendance reyuñu leen ci guerre mais ñu ñibbi si euh, ñu war leen a fay ñuy réclamer seen seen li leen loo xam ne dañu leen ko waroon a fay ñu massacrer leen et mu xewe caaro yi donc ñun ñu juddoo caaro yi yaroo fa màggee jànge ci camp militaire bi et tout on bi ñu créé groupe bi on on s'est dit au lieu de dire waa BMG de Thiaroye on met 44 pour la mémoire des tirailleurs sénégalais pour pour nit ñi bañ a fàtte histoire boobu parce que c'est quelque chose boo xam ni tey histoire la mais dañ ko war a retenir jusqu'à présent et voilà ñu ne foo groupe bi mënti egg ak fu ñu toog dinañ mën a défendre waxal tirailleurs yooyu seen jàmbaarte aussi wax ak tamit France wax ak Sénégal wax ak tous les autorités ñu xam ni loolu xewoon ca 1944 euh, bëggatuñ mu am mais aussi la fa xewoon jusqu'à présent li ñuy wax mooy il faut que mu am réparation parce que c'est des gens yoo xam ne dañu dem guerre ñëw ñu war leen fay ñu massacrer leen ils ont des familles il faut que loolu tamit ñu xam vraie vérité bi ñu xam la nombre de morts fan lañ leen suul ak la ak li ci topp yëpp te loolu je pense que ni combat la bu ñuy porter suñu dund yëpp tant que amuñu ci satisfaction wala lu leer te buñ ci amee satisfaction sax ba am lu leer il faut pas ñu fàtte ñooñu tamit quoi et aujourd'hui ñi ngi wax quatre-vingts ans quatre-vingts après la massacre tirailleurs yi ci année bi je pense que am nañu ay autorités yu bees euh, il faut ñu waxaale ci histoire tirailleurs yi il faut ñu gën ko jëmmal il faut ñi ñi xam lan moo xewoon parce que ñu bëri ñu ngi fii ci Sénégal ñi walla ñi ngi Afrique xamuñu exactement quest lan moo xew biir camp de Thiaroye ngeen ñëw 1998 ñëw indi esprit euh, révolutionnaire ngeen gis ne amaana régime bi nu muy doxalee dalul seen xel ngeen jóg pour dénoncer ko mu nekkoon nag lu jafe ndax ñu bari dañ doon wax ne seen paroles yi dafa hardcore dafa metti ñiy jàpp ne paroles yi tegginewul lan moo nekkoon defi bi jamono jooju. waaw défi bi c'était que waaw rap dafa dugg Sénégal. ak forme boo xam ni euh, bu gënoon a siiw mooy bu style bi PBS doon def position black soul daara ji ak ay Euh, sunu flavor voilà j'en passe groupe yi yi gënoon a ràññeelu mu nekk si lu rap raga soul alors que ñun on man boog je suis un hip hopper j'ai commencé avec la danse atteint 80 kat la commencé di fecc j'étais encore xale laa woon break dance ci la ñu màgg ci la dañu xam culture hip hop gra def nañu graffiti avant ñu ñu xam comme rappeur mais le rap mooy musique gu culture hip hop donc euh, danse bi c'est le break dance bu ñuy xool voilà décor bi c'est du graffiti donc culture la boo xam ne dafa am réalité yu ko yu ko sos réalité yooyu moo ñu bi ñu ko xamee on di dit que ni ak culture bi mën nañu am suñu place dans la société mën nañu wax li ñu metti mën nañu xeex li ñu naqare ci suñu biir société mais aussi li ci liy xew ci Afrique euh, en général ak li xew ci àdduna bi donc mu nekk culture boo xam ni euh, dafa doon xeex injustice inégalité sociale yooyu la moo tax culture hip hop mu juddu donc loolu dafa am presque fépp ci àdduna bi ñu ko doon dund Sénégal on di dit ñun stylu rap bi la ñuy def donc mooy li ñuy wax tey bu dëgër bi mais benn stylu rab moo mës a am rab boobu la woon maintenant ku mu neex nag nga def di rab fun ci biir rab bi am na ñuy def rap love rap fun ak leneen ak leneen mais nous on a choisi rab rap hardcore donc rab hardcore bu ñu koy wax c'est un noyau de poison dur euh, donc loolu lay hardcore bi di signifier ñun ñu conceptualiser ko ak jihadcore quand je parle de jihad on parle de guerre sainte euh, euh, xeexal islam mais jihadcore mooy ji semer la vérité aussi hardcore c'est la vérité donc ñu saxal dëgg xeexal dëgg pour apporter la lumière aux gens Euh, c'était ça notre concept et c'est pourquoi ñun suñu rap premier album bi ñu jénne ñu tuddee ko Jihad Core mhm. donc mu am trois dimensions ci ci ci ni nga ko doon ni nga ko doon définir foto mhm. bi euh, ñu gis leen gis naa ci la cargolar gis la ci ak ñoom manu déjà ni ngeen soloo style bi waaye c'est on s'habillait comme ça c'était hip hop voilà hip hop dafa nekk euh, loo xam ni Euh, euh, culture la dafa am feccam am musique am euh, am am am colinam parce que boo soloo lii ma sol nii casquette lu ma soloon lu ma mënti sol am na loo xam ne boo ko boolee dañuy xam ne ci hip hop nga bokk ko casquette bi daa am lu muy signifier parce que am na ay ay am na style solo bi lu muy signifier lu tax ñu koy solo pour ñu mën ñu ràññee ci biir affaire bi parce que il fallait venir occuper une place donc on ne pouvait pas s'habiller comme comme comme comme comme les bureaucrates wala ñeneen ñi il fallait que ñu am suñu code vestimentaire boo xam ne boo soxla solo di génn dañ lay ràññee et on a influencé tellement de gens et le hip hop continue d'influencer tey waxuma la ñi nekk ci hip hop ñi nekkul ci hip hop sax dañuy même les lutteurs benn instant ils s'habillaient hip hop parce que voilà c'est pour montrer que tu es vrai il fallait que nga sab nga abi nga solo nii quoi donc daa am lu mu solo bi lu mu doon fii lu am importance parce que man su ma demee ci benn diwaan di seeti sama benn xaritu wala ku ma xam foofu wala koo xam ne hip hop la nekk du ma xool ku sol caaya ma koy laaj wala ku sol benn grand boubou mais am na nooy solo romb ma c'est sûr que ne bu ma laajee ñaar ñett ñu solo ak kasket ak ni solo hip hop danaan xam naa ko mi ngi fii quoi donc am na loo xam ni moo taxoon ñuy wax ñun ñu ñuy rek ñu rek ñu ñuy woowee les rappeurs wala les hip-hopeurs parce que solo bi daf ci am solo tamit trop. Mhm. ñu gis ne fii sa dessin la mais nga ñëw ba ci sa wetu dessin taxaw photo wu. Ah. lii fan la déjà dessin bi fan la nekk. Euh, desin bi sama am benn benn xarit euh, graffeur bu dëkk bu dëkk Belgique donc suñu premier ou deuxième édition festival Festa 2H il est venu au Sénégal. donc vu la moom ni mu ñu suivre ñu ko doon évoluer en Europe ci seen yi et mu ni yow c'est pas normal euh, amuñu sa photo en en en grand quoi bu ngand ci ci biir Sénégal parce que euh, parce que noonu nga toll quoi mu ni moom ci biir festival bi il faut mu defar sama portrait euh, ci kii bi après il a pris l'affiche non jagetu album mu xippil xool moom la reprendre si benn mur nii après j'ai pris la photo devant. alors clip bi bokk na ci clip yu njëkk ci ah. Matador tey ñu bari dañ doon wax Matador lan lay wax nii hmm. Matador qu'est-ce qui vous a inspiré ba nga bind texte bi. waaw texte bi mi ngi tudd Sonn Boy et vraiment c'est mënuma wax sax inspiration bi de wax dëgg yàlla c'était c'était ay. Euh, parce que bi ma koy bind c' était juste après notre premier album 98 c' était dans les années 99 donc dama ko njëkk a jénnee si deuxième albumu ji jox ma sa five mais si morceau si instruit vraiment rab quoi instrumental rab bu dëgër donc c' est passé vraiment un peu à côté nit ñu capté wuñu message bi mais quand j'ai décidé de sortir sama premier album slam Euh, en 2007 si laa reprendra morceau bi en version slam et di saluer Ama Diop au passage moom moo defar musique bi e voilà nit ñi si la ñu massage bi mais c'est que dundu du du période bi ma koy bind quatre-vingt-dix-neuf laa ko mais dafa nekk diggante 92 ba 99 parce que ñun dañu yàgg ci underground parce que voilà nanguwuñu woon n'importe quelle production c'était compliqué affaire groupe la woon et puis on était trop hardcore donc euh, galère yooyu noonu Euh, dafa dafa day tax lay dund yoo xam ni sa biir gàlle ah wala sa gars yi di ko dund si biir gàlle bi ñu koy dund si biir koñ bi on était plus que des moyens que rien parce que juste dañ doon faire que rab nañ ñu doon def di ko assumer nag nit ñu ils comme des gens yoo xam ni bëgguñu dara seen live et puis voilà noonu lañ la doon xoolee j'ai résumé tout ça def ko benn histoire boo xam ne peut-être man am na ci lu mu ci dund sama gàlle am na keneen lu mu ci dund gàlleem ñu def ko benn histoire euh, def ko rab Euh, bon, slam ko et ça a donné ça et jusqu'à présent am na ñu koy dund tamit quoi parce que galère moom tant que life du jeex day am ñuy galère ñun ñuy gal ba léegi dañuy galère mais voilà ça nous rappelle vraiment moo période bi nga xam ni voilà dañuy daje nekk plus de quinze waaye mais pour ñu pour ñu jënd njëgu chain sax day compliqué parce que kenn du yore dara et aujourd'hui euh, dañuy dañuy delloowaat ci année yooyu pour ñu xam fan lañu ñu hip hop jógele ak fan la ñu hip yóbbu aussi parce que voilà nii la ko doon dundee ah vrai life lu ñu doon dund lañ doon rap quoi. sànq yaa ngi wax lu am solo muy ñi nga xamante ne ñoom ñoo fi njëkkoon nekk lu ci mel ni ay daara ji ay pi pifroise ay black black ji suul ñoom lu ci ëpp euh, rap soft lañ doon def yéen ngeen ñëw indi esprit révolutionnaire mu mel ni indil na leen comme ni nga ko waxee ay casquette lu ci mel ni ay marginaux ngeen ay bandi ngeen surtout boo nee banlieue bu ndakaaru tey sonn booy bi est-ce que du c'est pas la vie quotidienne des des banlieusards bëgg a ñafe tekki bëgg a jóge ci ci benn ndool bi ñu nekk. oui c'est ça c'est ça parce que comme li ma la waxee ñun vraiment euh, doonuñu woon yëg di woy ay di def ay son ay love wala des sons yu fën parce que da ngay yow li ngay dund au quotidien ay nit yuy galère ay problème Euh, y a un autre son avant ça bu ñuy wax 210 par exemple mais dañuy jël ay histoire yu bëri yoo xam ne chaque jour mënoo dund banlieue gi nga yeewu suba ba guddi nekk ci mbedd mi te amul colonie eh, sama càmmoñ wala frère amoo 100 francs jàppale ma ma paas wala ma lii donc kooku noonu bu nit ko bu eggee foofu bul xool ndax li muy wax dëgg la wala du dëgg mais sës na parce que damay jàpp ñëpp comme ni ñun ay gor la ñu ku sañoon doo tàllal loxo quoi nit bu demee bay tàllal loxo parce que sës na parce que metti na ci côté donc on ne pouvait pas faire du rap di wax leneen quoi la vie est belle voilà on la là avec les les shows dinañu béggee quoi non parce que ñun li ñuy dund ci banlieue du béggee toujours misère la galère la ça da bu la nit waxul sax ci kanamam dangay ngay lire ni li ngay gis jusqu'à présent ci kanamam mooy tristesse la mooy njàqare la mooy coono la ñuy dund donc on pouvait pas se permettre jóge yi ni nag dañuy waxal waa yi ba pare di wax loo xam ni bokkul ak li ñuy dund biir Caaroy te quand di dis yi mooy yëmbal Géejawaay partout banlieue bi en général yenn quartier yi li ñu fay dund ay boolu dof ngay góolu xam nga pour nga dem gérer ji sax ñii bu ñu doon bind loof man peut-être mooy ni bu may dem gere ji nan laay def ba taqale li may sol ab fii daal ànd fii jean ànd casquette kiy dem xaw a yéegal sa niveau pour mën a dem ñu mën la accepter et avec le rab après dañu dem ba démystifier yooyu yëpp mais il fale le dire donc sonn booy ci situation yooyu ñu doon dund ci la ñuy bind texte yi ci la ñuy bind ba léegi moo tax voilà du lu ñu xëcc quoi xam nga tu ne peux pas réclamer engagé da engagement bi da ngay juddu fekk ko fi mu nekk si yow nga koy demee du looy calculer du looy euh, euh, def par circonstance sa life yëpp lay nekk. justement 98 ba 2024 on parle de pratiquement de plus d'une trentaine d'années yaa ngi def engagement. essooru rap Sénégal kañ nga ko sentir. nga gis ne les choses étaient en train vraiment de changer. Bon, saa a beaucoup changé. Ça a ko changé. Malbok, bokk on est très bien placé pour wax évolution hip-hop galsen. Parce que, bi ñuy commencé nekk ci ay bopp koñ amuñu fo benn sax puxus booy répété wala fooy fooy réunion aujourd'hui ay structure la ñu yore di former ay nit donc ça veut dire côté organisation hip-hop bi li mu organiser ci Sénégal ci culture ci évolution tey buñ ko doon wax du jeex te mënuma ci jénne les old school parce qu'il fallait commencer assumer ko imposer ko parce qu'il fallait imposer ça lu kenn mësul woon a dégg la rap gars yi mbalax lañ doon dégg ak leneen donc première génération bi seen mission mooy imposer hip hop ba nit ñi par force neex naqari dañ koy consommer et je pense que ni réussir nañ ko beneen bi mooy imposer ko les systèmes yi nga xam ne ñoo fi mës a jaar yëpp dañ leen a imposer hip hop et commencé wul tey euh, première génération c'était du avec des chansons yoo xam ne dañ doon wax pour population yi ñu conscient ni dañu war di changer ay régime parce que ni mënuñu continuer benn régime def ay trente ans xaw ma lan quand les jeunes qui nous bi ñu demee ba am âge voté ñoo am benn première alternance on a trois alternances actuellement hip hop bi ci yëpp daf ci contribuer à 100 pour cent le hip hop Galsen tey li mu rôle bi mu joué dix quinze ans yi passé hip hop américain bi nga xam ni li ko taxoon a jóg mooy xeexal der bu ñuul joxaat der bu ñuul jox ko valeur am xeex injustice inégalité sociale racisme nga xam ne moo taxoon hip hop eh, américain yi créé cette culture là mën naa wax ni Sénégal lañ la gën a amee njeexital que États-Unis boobu parce que jusqu'à présent racisme mi ngi exister aux États-Unis on tue les blacks en pleine journée dans la rue George Floyd wane na ko si est-ce que le rap américain reste et encore rap di taxoon rap juddu di taxoon ñu créer ko la mu taxoon muy xeex bu doon ñi nga ca ba léegi du ñu rey blanc noir yi ci mbedd mi en pleine journée nit ñi di ko filmer et aujourd'hui le hip-hop sénégalais gis nañu ñaari alternance yoo xam ni kenn mënu koo teggi yoo xam ni hip-hop yi heure yi dañu jëlee devant ñoo ko xeex le Y'en a marre ce qu'ils ont réussi parce que moi j'ai tout je bokkuma biir Y'en a marre mais damay soutenir parce que y a des hip-hopeurs devant comme ni ma soutenir ba may teg Africulture li ñu réussir amul hip-hop bu ko réussir ci àdduna bi amul ce qu'on a réussi au Sénégal sur le plan politique la hip-hop daf ci joué lu bëri à 100 pour cent les hip-hopeurs ont participé ba ci ñi mujjee mais les affiches que vous voyez sur internet les jeunes qui sont en train de filmer di def ay postes de gauche à droite oui fan lañ leen former c'est pas l'État du école de formation yi nga xam ne bu sa paay amul moo niñ dëggantaan doo fa jàng du ñooñ ñoo formé booy yi nekkoon ci bedd mi il faut que les gens se posent la question ils ont été formés jeunes là c'est le hip-hop qui les a formés et aujourd'hui ñoom ñoo nekk di mener combat bi et on sait avec qui on se bat et on sait comment se battre et comment ak évolution Sénégal ni muy évoluer ak àdduna ni muy évoluer le hip-hop s'adapte et continue de mener ces combats-là et continuera de mener ces combats dañuy continuer di mener le combat mais en attendant Matador kii kan la kii kii sama sama sama doom la c'est ma fille mais lii yàgg na ko elle est elle avait quoi je sais même plus. na trois ans xaw ma quatre ans. mais là, maintenant elle a, elle a a dix sept ans maintenant. elle a dix sept ans. moom mooy sa taw. waaw moom rek nga am si bant wala. non j'ai j'ai d'autres. am naa am naa j'ai quatre moom lan mooy sa relation ak moom. kii mooy sa bon sama doom la <laughs> sama relation <laughs> relation papa ak doom la. <laughs> lu tax ma laaj la loolu mooy dañ ko gis ci say photo te bu dee am nga quatre fii hmm. elle doit être bon du ñàkk nag parent bu ne dina am peut-être préférence wala dara sa xarit la wala waaw sama xarit la hmm. waaw dañ sama doom dañ ma dañ ma ruus quoi xaw ma man ma metti xaw ma nu mu def noonu <laughs> mais doon bëgg a ñëw est-ce que Matador tam nekkul papa boo xam ne dafa metti non non non pas metti au point où voilà j'aime bien ma famille boo gisee li may woy sonn booy euh, c'est parce que j'aime trop sama famille moo tax instant bi ngay galère munoo leen a démontrer à quel point lan nga leen yéene moo tax ngay waxee noonu quoi parce que soo sañoon tey euh, sa famille ñëpp ay nekk à l'aise xam nga da leen apporter lu bëri quoi mais ñun dañ demoon ba suñu gàlle yi comme jeel la meloon duñ fa bëgg dugg ko parce que da ngay gis loo war a régler mënoo ko régler te hip-hop nga gëm joxagu la dara xam nga tu préfères fuir moo tax ñun ñuy wax culture mbedd la parce que ci mbedd lañ doon mbedd bi moo ñu doon ak yiir bi ñu kër yi rejeté bien que du rejet rejet bi du dañ la dàq sa kër mais yow yaa dul mën a toog sa kër parce que tu as tu dois fair beaucoup de sos yoo xam ni war nga ko mën a def te mu instant boobu amul possibilité def ko tu préfères mm, bañ bañ fa nekk mais nekk ci mbedd mi mais c'est pas ñiy wax ni mbedd day yàq nit dañu xamul mbedd mi lan mën nga fa yàq ko mbedd mi defar nañu bëri tamit quoi ñun caaro yi lañ jóge mais doo ñu gis xeeb ñu doo ñu gis tamit ci loo ñu war te gis ñu xam suñu bopp lañu parce que mbedd moo ñu yar. ñu wax ci culture urbaine yaa ngi koy wax léegi. Hmm. Matador mu mel ni culture urbaine bokk nga si ñu ko fi njëkk a wax. tey culture urbaine bi dëgg la ci mbedd la mais dañuy gis rab la danse la graffiti la yu bari la c'est quoi exactement le concept le concept c'est que moi j'ai grandi avec la culture hip-hop et on a benn instant dañu am dafa am incompréhension ak loo xam ne dafa installé woon du seulement au Sénégal quand on quand on parle de hip-hop les gens parlaient de rab et quand on parlait de rab les gens pensaient directement rab engagé sànni xeer kaas voilà loolu la nit ñu doon gis quoi et benn instant euh, euh, ñun euh, on a vu ah man bokk on a eu la chance de voyager de sortir ñu gis euh, ñi ñu am benn structure bu ñu accueillir à, Bruxelles bu ñu wax les arts urbains ki njëkk a théoriser culture urbaine moo fa nekkoon directeur ñu doon am ak moom ay discussions on s'est dit que ni on va au lieu de parler hip-hop ñun dañuy yóbbu culture urbaine au Sénégal parce que à l'époque au Sénégal aussi ñaari groupe yu bokkul style bu ñuy def du ñu caaroo taal parce que boo juste bokkoo leen style yu musique yi ngeen di def ko dangeen di nekk ay rappeur kii di def rap raga soul yow ngay def at hardcore mais gars yi dañu demoon ba mel ni ay ennemis la ñu te ñu nekk ay ennemis ñun ak état am na loo xam ni tamit demoon na ba am fa képp ku nekk ci état rappeur da nga koy jàppee comme benn opposant euh, euh, mais ñu on fait pas de la politique ay artistes lañu ay acteurs culturels lañu donc quand on parle boo demee ci autorité yi ne ko rappeur laa rek déjà il se méfie surtout na nga ne ko rappeur hardcore après je me suis on s'est di les cultures urbaines moo gën a inclusif da ciy boole ñëpp parce que plus ñuy dem hip hop day mélangé wu ak yeneen culture loolu di fa juddu moo tax ñuy wax culture urbaine mais aussi avec les autorités ñoom si seeni nopp nga ne leen culture urbaine moo gën a yomb jàllale que nga ni leen rap wala hardcore wala hip hop dara ça sone un peu violent pour eux normalement pour régler yenn problème yi dañu waroon a ñoom tamit di jog di toog ak ñoom ñu xam ci lan la ñu nekk ak lan la ñu bëgg lan la ñuy def donc quand on a choisi de vraiment venir installer le projet waxuñu hip hop mais dañu wax culture urbaine moo indi culture urbaine et on s'est pas limité seulement au Sénégal on s'était dit que voilà plus ñuy développer structure bi dañuy étendre suñu ay ay ay ay base ba ci yeneen pays africains yi yi ñuy wër yëpp parce que il faut que pour que on parle de panafricanisme mais c'est pas des discours c'est des relations entre les peuples et je pense que la les cultures urbaines nekk na culture boo xam ni foo dem ci àdduna bi fekk ko fa donc il faut utiliser ça pour rapprocher les peuples et les gens les Africains parce que quand on dit que Africa the future le futur de l'Afrique là c'est pas après demain ou dans deux ans ou dans dix ans c'est maintenant c'est maintenant et nous ñun ñoo koy samp ñoo koy taxawal concept la wax boo xam ne bi ñu ñëwee teg ko am na incompréhension yu bëri ñu nekk ci culture hip hop sax ñu bëri d'accord ñu woon au début mais tey personne ne parle plus de hip hop au Sénégal tout le monde parle des cultures urbaines on avait cette vision là il y a dix-huit ans derrière bañ koy samp à Pikine et aujourd'hui il y a des multitudes je ne sais pas plus de cinq cents structures yu nekk Sénégal yoo xam ni dañuy liggéey ci culture urbaine donc on dit alhamdulilah ni ñu fi def am na njeexital te bu doon lu bon keneen du ko copier et aujourd'hui on est arrivé à avoir un fonds de développement des cultures urbaines daa am ñoo dañ ko xeex parce que euh, ça nous revient de droit et aujourd'hui le fonds et la ça existe ya y de projets yàlla y la MCU maison des cultures urbaines parce que qu'il fallait commencer et on a eu le courage de commencer ça ya y a 18 derrière tey nag alors vraiment permettre na ay génération génération juddu ci hip hop ba tey ñooy occuper les hauts les devants de la scène et ça on naa ne fier et on va pas euh, arrêter de travailler pour cette culture là parce que dama gëm ni culture boobu li mu mën a apporter Sénégal politiciens yu bëri wala ñu bëri ci askanu Sénégal apporter lu ñu ko d'accord léegi sànq yaa ngi wax ci les grands du mouvement hip hop ñoo xamante ne ñoom la ñu euh, gënoon a gis ci scène bi. Mm. Positive Black Soul Awadi ak Degeti euh, tey sa relation ak ñoom lan la ak yow naka nga gisee ñoom liggéey bi nga xam ne def nañ ko ci mouvement hip hop. waaw non lu extraordinaire parce que ñoom ñi ngi nekk ville ñu man maa ngi nekk banlieue. c'était pas c'était pas facile au début c'était la guerre quoi ñu xamul parce que pas guerre. parce que dañ ko doon def parce que dañ leen soxore wala ñoom dañ ñu kii mais on occupait c'était une scène et chacun essayait d'occuper cette scène là nekk aussi kanam mais aujourd'hui je te dis Awadi si je te que ni c'est un des frères waxuma hip hop waxuma culture c'est un fraire et ça je le dis si tele laa koy waxee lu ma ñor dëgg wala lu bari loo xam ne bala ma ko kii dañ ciy jékkoo dañ ciy waxtaan c'est un vrai et deuxièmement je lui dois un respect parce que c'est pas parce que ñëw nañu ñoom ñu doon def raga rab ragasol ñu ñu ñu ñëw bokk ci ñu imposer rab hardcore ba rab hardcore am fi doole yenn doole yi mais ils sont les premiers Positive Black Soul ñoo fi njëkk et ils ont travaillé pour cette culture là képp ku ciy dund même bu ñu demoon ba yàlla def ñun ñëpp ñu jóge fi kuy dund ci culture hip hop war nga leen a delloo njukkal boobu man boog hip hop loolu la ma jàngal ñetti R la respect reconnaissance ak représentation. sans transition daara ji. daara ji c'est la même chose ils ont parce que parewuma ci PBS Awadi c'est un ambassadeur tey waxuma la hip hop mais Sénégal yëpp dañ ko war a ndamoo parce que fa muy taxaw ak fa muy représenter ñu jox ko fa cër bi ñu ko fa jox ci Afrique ak ci àdduna bi fierté la war a nekk pour les Sénégalais d'autant plus les hip-hopeurs parce que ñoo xam ni ay moyens créés lañ leen jàppe woon ñoo xam ne tekkiwuñu dara. kenn mosuleen a faal société bu demee ba tey fa nation yi di daje ñuy waxtaan ñu am ñoo xam ne jox nañ leen cër boo xam ne ak dayoo boo xam ne dañ leen di déglu fierté la war a nekk pour n'importe quel sénégalais africain et ku nekk ci culture hip hop dëggiti la même chose nous dañ ko doon seetaan mu ñuy jaaxal parce que moom moo ñu doon gën a impressionné sax que américain kooku tamit cër boobu dañ ko ko war a delloo ba mu mat sëkk la même chose que daara ji famille daara ji en euh, voilà daara ji euh, euh, en gros El Hadji Man Ndongo Fada Freddy parce que dañu bokkul quartier yi ñuy jógee mais dañu bokk benn histoire parce que galère yi fépp la woon quoi mais aujourd'hui ils sont ils ont tenu ça fait plus de trente ans que ces gens là sont là ils ont fait le tour du monde dem nañ fu nekk représenté fa Sénégal tañe nañ ñoo moom fu bëri et aujourd'hui je pense que état wu Sénégal ak ku fi mënti nekk am nga cër obligation nga am pour delloo nit ñi cër boobu nga xam ne am nañ ko ils n'ont jamais failli musuñoo woon ginnaaw Sénégal ils sont encore la et ils se sont battus ba egg Sénégal am li ñu am tey ba egg fi ñu egg njukkal boobu lañ leen ko war a delloo. alors ñu gis ne tamit. Euh, hmm? waa jant bi. jant bi waaye waaw ah, c'est tout le monde xam nañ leen. Mm. Euh, vraiment euh, di di di ñaanal Moussa yàlla yërëm ko xaare ko àjjana vraiment ça fait plaisir de voir ces gens là. Mm-hmm. Euh, photo yi parce que dañuy fàttali ay ay moment quoi. le Sénégal après la États-Unis et la France moo nekkoon troisième ci àdduna bi ci hip te ñii ñëpp nag c'est la somme de groupe yi fi nekkoon période boobu yëpp li ñu doon def moo tax ñu doon wax Sénégal troisième. pakoti aussi yàlla na ko yàlla yërëm il de la banlieue de yëmbal euh, ak waa Black Diaspora di ñëw teen bi ba ak fi mu egg euh, tey yàlla na ko yàlla yërëm tudde nañ ko dispensaire à yi et sa je pense que ni c'est sa loolu la artistes yi ak génération yi njëkki ñëw ci hip hop li ñu fi def loolu la ñu mérité ñu leen di tudde ay affaire ñu jox leen cër vraiment xam ni dañu xeexal Sénégal tey Euh, yombul ci Afrique nga am dëkk bu mel ni Sénégal et je dis que ni suñu amee lii parce que hip hop dafay teel a dugg ñu teel ko comprendre adapté ko tropicaliser ko boole ko ci culture dundinu sénégalais yi ñu koy déglu muy wàcce seen métti di ñuy wax ak nit ñi muy dugg seen bopp yi ñuy agir am am euh, li ñuy wax benn maturité politique donc la hip hop a beaucoup contribué dans ça et ki ñii ñëpp nag ku ci nekk gàcce ngaalama dox nga si li nga war a dox. waaye mhm. ça c' est Daddy Bib Soul moom tamit euh, euh, voilà ce qui est important mooy Bib Soul je l' moom kii moom ma présenté Fatim ni ma yéen Fatim rab bi mu bëgg yow yéen ay voilà yow laa ci wóolu quoi. et Fatim après est devenu membre de WAV VMJ 44 donc pour diir que nous dans en matière de rap amul genre tu le fais bien da nga koy gëm nekk ci quoi parce que je pense que group bu mel ni BMG bu ñu nangoo bu ñu accepté Fatim c'est pas parce que ji góor la wala jigéen la quoi parce que gëm-gëm la concept la démarche la dëggu la quoi et vraiment c'est au passage maa ngi saluer Fatim bi mu ñëw BMG dafa tasante presque période bi nga xam na nag gars yi tasaaroo nañu donc euh, mais elle est encore membre de waa BMG 44 elle est encore membre de euh, BMG et 44 euh, Matador euh, tey sa mot de la fin lan lay doon. waaw di leen jaajëfal ça fait plaisir ah photo yi ngeen défilé nii dañuy replonger ci ay années derrière wane na aussi dañuy am jàngat fan lañu ñu jógee hip hop bi mais fan lañ ko indi tamit am na lu bëri lu ci gars yi liggéey et vraiment di jaajëfal le mouvement hip hop. parce que ba ñu tey yomb na Sénégal ku jug rek di wax mouvement mais benn mouvement la ñu xam ñun dans les années quatre-vingt-dix ba deux mille muy le mouvement hip-hop et ce mouvement là il faut que mu continuer di exister il faut que mu continuer di exister parce loolu mooy sauver Sénégalais yi moo leen di sauver ci lu bëri moo leen di eh, dàqal lu bëri parce que am na loo xam ne bu nekkee sa bopp wala mu nekk sa xol nga war ko jënd te jëndee woo ko bu nekkul violence verbale ça peut devenir mën na nekk violence physique te loolu ñaanuñu ko et dernièrement c'est ce qu'on a parce que micro bi la gars yi teg non je je demande au hip de reprendre la micro parce que violence verbale bi ñu doon wax noonu moo gën fuuf violence physique et tant que ñu ngi am possibilité di wax di nekk ci dënn ñu koy jënne mën nañu bañ a egg ci violence physique boobu noonu donc voilà il faut que aussi le public et les Sénégalais ñu xam ni c'est un peu compliqué d'être artiste nga nekk artiste si dans nos pays là rek dafa jafe ki nekk ci kaw rek peut-être moo siy jënn mais ya a ya y a des milliers de jeunes yu nekk yoo xam ni ils veulent ils culture bi la ñu bëgg musique boobu lañu bëgg mais du ñëpp ñooy am chance su chance bi dip am wala Samba Peuzzi wala euh, As de Best wala IS 814 du ñëpp ay am chance boobu et pourtant dañu bëgg culture boobu il faut que ñu trouver des voies et moyens yoo xam ni ñi nekk ci culture boobu amuñu chance nekk au devant de la scène exposé ñu jox leen la possibilité de pouvoir vivre ci li ñuy def ci biir culture boobu et je pense que bu ñu tegee ay structure tey nekk ci ginnaaw gisatuñu ba lu bëri ci kanamu écran yi c'est parce qu'on est derrière di liggéey ci loolu pour mën a apporter ces générations yi di ñëw wax ma yi fi nekk de yii di ñëwaat ñu am même chance que ñun mën a dugg ci culture boobu changer ci li ñu bëgg a changer mais aussi mu nekk am ci mu nekk profession mu mën leen a dundal ba li dal sama yenn morom yi ba ñu mujjee bàyyi culture bi dem toog bitim réew loolu bañ a dal ces jeunes là ils doivent rester ici et travailler pour le Sénégal rester ici et travailler pour le Sénégal am na solo euh, seen émission euh, souvenir euh, souvenir amoon mbégte dalal Babacar Niang di Matador ñu leen jox dig daje fii ak bii di ñëw 13h30 di leen jaajëfal. waaw jaajëf ñëpp di